asalaamaaleykum mbokki internet IYAT TV ñi ngi leen di nuyu fii ñu leen daan nuyoo uh, ci seen chaîne de la vérité IYAT TV parce que ni ñëwaat ak yéen ci beneen waxtaan beneen numéro comme ni ñu ko daan defee ñu ci ànd ak uh, sëñ Modou Astou Mbacké uh, muy suñu chroniqueur waaye jamono bu nekk li nga xam ne mooy actualité ci réew mi ak li nga xam ne mooy xew-xew yi nga xam ne mooy am jamono bu nekk mu ñu koy tojal di ñu ko faram-fàcceel di ñu ci indil ay leeral yoo xam ne daanaka bariwul loo xam ne dinañu ko indil muy ay leeral wala dinañu jàngatal benn mbir ñu dem ba egg ca te demeewul noonu moo ñu mooy cas bi nga xam ne dal nañu tey euh, mu bokk ci li ñu war a waxtaane muy mbiru Pape Diop bi nga xam ne rejoindre na benn Bokk Yaakaar ci tey ci ngoon mu def déclaration bi loolu it ñu war cee euh, defub jàngat ngir moom mu xamal ñu lan moo ci xalaatam tamit euh, lan mooy jëmuwaayu Pape Diop ci politique ak lan moo nar a nekk ak mu jëm waaye tamit euh, dinañ ci ñambaasaale euh, ñii di digg euh, diggante entre wàllu ak yeewi intercoalition bi ndax it ñu ci bari ñu ngi jàpp ne Karim Wade dina ñëw waaye tamit ñu ci bari dinañ jàpp ne aussi adversaire u Macky Sall Ousmane Sonko kese la wala Karim Wade kese la wala ñoom ci seen biir seen combat nan la ñuy nan lañ jàpp ne noonu la war a demee ci li nga xam ne moom la ñu war a dëgmal ci kanam loolu lépp dinañ ci ñëw waaye balaa ñoo guddal xam naa ne jot nañoo guddal ba pare waaye balaa ñëw gën a yàggal dinañu wax dañ koy bàyyi bokk mu ñëw ci euh, nuyoo bu nuyoo ba pare ñëw ci li nga xam ne mooy mbirum Pape Diop su ko defee ñëw commencé ko ci poser question ngir mu tontu nga xam ne moom la ci def comme ay jàng waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki RTV ñu di nuyu di jiital ci nuyu bopp sëñ Fallou xam ne mooy directeur bi ak sëñ bi mu àndal sëñ Lo di nuyu mbooleem ñi nga xam na itam ñi nga xaar chronique bi ci waxtu wu ne di nuyu itam koo xam ne suñ kàddu dana wal ba àgg fi moom. waaw jërëjëf sëñ Modou niñ ko waxee rek dañuy dugg ci mbiru Pape Diop Pape jóob tey euh, mu euh, wala boog sax dama naan avant ñuy egsi tey gis nañu ne bokk na ci ñi nga xam ne am na député. ak euh, bokk gis-gis bi nga xam ne moom la jiite woon moom mu nekk député waaye am ñeneen ñoo xam ne aussi député lañu woon comme moom moom nag position bi nga xam ne féete woo woon na ko tax na opposition bi soxla ko waaye comme pouvoir soxla soxla ko waaye ñu gis ne tey dafa jël décision euh, rejoindre Benno Bokk Yaakaar décision boobu boo ko doon jàngat ban jàngat nga ciy def sëñ Moudou. Ah, sëñ bi maanaam fi may tàmbalee Pape Diop jàpp naa ne toogoon naa fii ne day dem. waaye man dong waxuma ko woon nag. Mm. jàpp naa li ëpp ci ñuy wax di wax seen xalaat ci Sénégal. bu mm. ñu doon téeméer. juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yëpp waxoon nañu day dem. Mm. kon loolu jàpp naa lu nit ñëpp maase wax ko nag. kon xam-xam amatu ca xel mu rafet amatu ca. waaw ah, ak yeewute amatu ca amatu ca lu lu ñëpp dëppoo wax ko lu egseegul. kon day mel lu ñëpp maase xam la wolof nag day wax ne lu ñëpp xam boo koy wax nettali wax ca tuuti doy na. gis nga tey jii conférence presse bi mu def. waxoon naa ci benn interview ne leen di benn député bi moom lañ njëkk am ci quatre-vingts député yi député benn bi moom mi ngi seen poos waxoon naa loolu. gis nga Pape Diop door a wax ne mi ngi jëm ci Macky mi ngi ci Macky Sall waaye mosu caa jóg. gis nga dafa am ci ñoom ñoo xam ne ànd bi ñii ànd nii arrangé wu leen waaye daf leen obligé. Hmm. tubaab nag day wax ne les situations obligent il faut appliquer xam tax ma obligé leen dafa am système politique. ak système gouvernance système opposant système déroulement d'étatique bu mas di am Sénégal boo xam ne ñoom mosuñ cee wuute ci misaal ki yor état bi muy Senghor am na benn Abdoulaye Wade ca wet ga muy bañ ki yor état bi muy Abdou Diouf am na benn Abdoulaye Wade ca wet ga muy bañ ki yor état bi am na Moustapha Niasse am na Tanor Dieng ca wet ga ñuy bañ ak Abdoulaye Bathily ak son dem si na ko état bi actuellement di Macky Sall am na benn Karim Wade ca wet ga am na benn et cetera ñoo xam ne ay opposant lañ te opposant yooyu nag Idrissa Seck ma nga yooyu noonu et cetera Bamba Dieng ma ngi waaye mosuloo xool fekk ci Ousmane Sonko mu bokk ci opposant yooyu opposant boobu nag di Ousmane Sonko bi mu ñëwee dafa benn façon politique bu mu indi boo xam ne arrangé wul pouvoir bi arrangé wul opposant bi ndax ñoom ci misaal dama day misaal ne Sénégal dafa mel ni fenn sanro aw nag la nag bi ñu ko rendee maanaam jëmmi ki yor état bi ak ki yorul état bi ñoo wekk moom même wenn doxaleen xam nga ba xam nga xam nga ban problème la ñu maanaam Macky Sall mi war état bi hmm. mooy wàccal ma toog waaye defar Sénégal moom problème ba musuñ ko am ndax ku ciy defar Sénégal amut bi Ousmane Sonko ñëwee nag hmm. ne maanaam wàccal ma defar bi Ousmane Sonko di génne wàccal leen ma defar hmm. wane ay yoon ak i xalaat ak i tëri leen yoo xam ne bu ci jaaree mën nañoo defar ci misaal mooy gars yi moom ba ñu nag wi dee waaye nag wi bu dee ba pare koy lekk bopp bi koy lekk tànk bi Ousmane Sonko nag wi du de nañ bàyyi nag wi mu lekk suur ratt amam soow nit ñi ba daal di jàpp ba daal di jëfandikoo soow doomi sénégalais yi jëfandikoo soow mi bi waralem hmm. bii amee nag xam nga lan leen yóbbee ñoom ñoom politique traditionnelle boobu hmm. ki daan opposé wu ngir bëgg a état ak ki yor état bi gis nañ ne ñoom tey jii ka ci kaw état moom day wadd te bu waddee du jox kii nga xam ne moo naan ko wàccal ma toog hmm. leen ñu defar état bi wàcc leen ñu defar réew mi kookoo nar a toog ñu daal def benn bloc nag bloc bloc boobu nag ngir Ousmane Sonko mi ne leen wàcceel yow Macky te Ousmane Sonko bu wàccee Macky Sall lu bay des mooy ki mën ci dara leen wi laa la wax de waxuma la ci forme bi hmm. du Bab Diop mooy ki mën a demaat ci ata et cetera et cetera du ñeneen ak ñeneen ñoom ñooñu nag ñoo commencé di formé wu ndànk par ndànk ne hmm. nga xam ne tey moom lañ def moom lañ la joo xam ne ji day door am fukki fan hmm. waaye doom la weer am ñaari weer am ñetti weer am ba juróom-ñeenti weer ndayam wasin ko bu kon ndayam wasinee xam nga lu muy doon da trouver la système lay doon te bu boobaa Karim Wade retrouvaille libéral libéral retrouvaille sax dañuy nax nit parce que libéral du dëgg Macky Sall du doonul ab libéral ci ah moom ni mu présenté boppam. Mm-hmm. Moustapha Niasse doonul ab socialiste. Karim mm-hmm. du doonul ab libéral. Mm-hmm. Moustapha Niasse en tant que socialiste moom libéral bi Macky kan la gën a mënal ci libéral en tant que Macky Sall en tant que libéral Karim kan la ci gën a mënal. loolu loolu ku ci ku mu a mënal c'est-à-dire moo nekk libéral bàyyi ma ko formé moom Karim Wade moom Macky Sall avant mu dem ay ACPADS comme noonu ma ko xamee ñëpp xamee ko noonu. si maanaam jëmmi socialiste Moustapha Niass la gën a mënal ci ñee parce que problème mooy ñoom amuñ problème mu tur yooyu ñuy wax du dëgg. amuñ problème mu idéologie amuñ ay idéologie xam nga lan la ñu am. ay ay ay ay ixtilaafaat maanaam ay divergence divergence xam nga lu ko weral hmm. jox ma sama wàll ci nar bi dinaa la jox ak du la jox. ak sama sees bi da ko bëgg a yëngal tokki ngir pour sa intérêt personnel loolu problème boo gis ñu am ko rek loolu képp la mais mais du intérêt Sénégal. Hmm. ki mu gis nag ki ñu gis nag muy intérêt Sénégal ñoom ñëpp nangu nañoo perte ñàkk wàcc. dignité et cetera ak lépp lu ci aju na ngir ñoom. seen hmm. classe politique boobu ñu mas di former 1960 ba tey dara du ko yàq. Hmm. jaral na leen ko def na nga Pape Diop bi Macky Sall door hmm. mu woote woon di wax ne ku mas a nekk maire maire Dakar. dalaa bëgg a dalal pale daal lay décorer n'est-ce pas yéen a ngi fàttaliku loolu. ñëpp a dem ba mu des maanaam Pape Diop. biñ ko interviewé lan la te boobu ñu ngi ci nationale parce lan la loolu ay caaxaan la ay fola booba lam doon waxoon gëmoon na ko ci en tant que opposant boo xam ne dafa gëm ne dafa gën a Macky daa war a jóg moom keneen toog ndax moom moo ko fekk ci donkaas la jëlee ko gëmoon na loolu de mhm. mais booba gëmul réew mi bi mu gisee ku réew mi nag ki lay daal def benn opposant boo xam ne négocier avec Macky Sall yàlla xam ne ay Cheikh Alassane Sène yëpp bu ma def ay recours recours yi xam nga lan la mhm. dañoo bëgg a jël actualité bi divertir nit ñi ci yeneen dévier situation bi. dévier situation bi actuellement Pape Diop daal léegi ñu war ko waxtaanee ñu ne dugal nañu recours si cour conseil constitutionnel pour mu nekk ñaari actualité mhm. loolu lañ bëgg nit ñi ba nekk ci du débat mel ni dafa nekk actualité boo xam ne forme bu normal la xam nga lan la ni un scénario un film scénario la xam nga dafa mel ni série yi nga gis ci télé bi dem toog ki seeni kii di ko seetaan ñoo xam ne moom ma koy seetaan moom ma defar scénario ba su suyee théâtre ba bu waa waree takk ndaw si bu ñu waree am doom bu waa ji waree génn kër gi waa ji waree wax ak goro bi ñoom ñoo ko suyee xam nañ ko di xam nañ ko effectivement ñun ñoo a seetaan ñun ñii xamutoon li waaye lii bañ ko tëggee yàgg na xam nga ñu ko tëggee Hmm. bi élection yu jub see def nañ seen tous les sondages. yoo xam ne hmm. dana leen permettre ñu xool gan wet la ñuy jaar pour sàcc ñoom moom dem ci élection gagné loolu ñoom loolu nekkul ci seen xel ba ci 2024 dem ci élection gagné ci lan lañ nekk. Hmm. xalaataat ban yoon la ñuy jaar pour sàcc gis nga 2019 ci fan lañ jaar pour sàcc ay parrainage la ñu andi. parrainage bi. kàll mboolem candidat yi. daal dem assemblée wax def seen loi ku ñu tëj doo ko 5 ans loo nekk candidat daal bala fa jóge ñëw ci élection yi jël mboolem média bu nekk Sénégal ñu jënd la corompe France 24 ak organisation nationale internationale yi bañ ba ca ngoon nga ñoom ñu yor ñoom ñu organisé élection ñoo muy joxe wala élection yi li muy joxe nit ñi organisé élection ni daanaka ñoom ñooy njëkk a joxe seeni résultat avant ñeent leen ko jox très bien foofu laa jëm ñoom résultat bi ñuy ni ñuy organiser élection. pour Sénégalais dem voté jambañ gàcce ndax loolu mënut a ñàkk. ne la ñuy organiser seen résultat teg ko ne. di xaar la xaar nag mooy lay weesu ñu génn résultat yi ak résultat yi donte amut ak lii benn xalaaxaat benn relation amuñu ko. bi mm. mu turee te ji bi élection yi jub si ñoom xam nañu ne seeni sondage mayu leen sax ñu am ay ay 64 députés 74 députés. Mm. dañu naan la mayu leen ñoom jël majoritairement man koo négocier après dégg nga. Mm. bu ñu toogee ni ñu xalaat mooy éliminer mboolem candidat bu sérieux ba nga toog. yéemuñ ci ñu fexe ba def seen i manœuvre ñoom daal di fexe ba jàllale seenub liste jàllale yeneen liste yoo xam ne mënuñoo am parrainage wala bu ñu ko mënee am rek mënuñ ko mën am ko mën a am bàyyi bugaan mënuñ ko mën bàyyi ñeneen parce que ñooñu bu ñu jàllee ah ñaari mbir mën a nekk ñooñu ñoom danañ am sax ay député gis nga gaa yi ñu gis nga gaa la wax ne am nañ ay député comme ay aar aar seen aar gi ñoom aar ak ay naataange Sénégal ak yooyu benn député la am man wóor hmm. na ma ne am na ñaar. Hmm. te toll na moment boo xam ne ñu ngi doon wax ne ñoom am dinañ am cinq députés sax. amoon na maa la wax ni nga luy problème bi. Hmm. mooy ñoom dañoo d'accord ci benn forme. yaa ngi dégg député yi ñu war a am. waaw ah. au ñu bàyyi di officialiser na ñoom am nañ li bu ko defee taux bi pour benn yaakaar war am. di wàcc ñu leen ñu sàcc ñoom seen député. xam nga maanaam jëmmi yow mi nga xam ne yow yaa moom alal ji. yow ko jël beggandil ko ngir sàcc bi nga déggoog moom ci mu wan koo sàcc xam nga la ah. maanaam sàcc bi sàcc li muy sàcc yow mi yow mi borom alal laa waxoon ne la amal alal yi nga am nga moom ko comprendre mm. waaye bis dana ñëw bis dana ñëw dikk bu ma koy sàcc nag ma ko yombale te bu ma ko sàccee bul ni ma sàcc yëpp mm. sàcc bi waa yeeyu askan wi de ñeneen ñi lañ sàcc te loolu complot la complot électoral la mm. complot kon daal kon daal dàqul li Ousmane Sonko doon wax naan euh, liste bu dul euh, wàllu egg ak yeew yi da ngay liggéeyal Macky Sall kon loolu dàquwul léegi ma jox la benn mes benn benn question la mu waxoon noonu ku ne da ko ŋawte ŋawte su jëfi jëfi Pape Diop bi tey ji lan lay tekki loo xam jooju ah, a confirmer kañ leneen lu dul loolu nag dina confirmer wu te yéen ñëpp dana leen bett xam tax hmm. tey ji ñoom retrouvaille famille libérale boobu ñu wax du dëgg ndax loolu amul libéral amul social Sénégal fii boo demee Amérique fa nga xam ne idéologie politique am na mais fii ñun dañoo nekkul ay nit ñu idéal parce que nit ko idéal mooy ku jóg ngir lijjanti sa sa situation ak sa mhm. waa dëkk ak jafe-jafe sa waa dëkk loolu kan la kan la ñoom actuellement amu ci amul kon ñoom tur yooyu lu ñu fent la dañu ko naxe in hiya illa asmaun chammaytumuha antum wa abaukum fi dalalin mubinin la yàlla naan du mhm. dara du tur yoo xam ne ko créé yéen ak ñeneen jiitu woon mhm. waaye dara du ci dëgg tur lañ jël daal di koy laafale mbir mooy wérut léegi nag maa la jox garantie bu wóor a ah, man bokk gis nga Ousmane Sonko ak li ñuy wax patriote waaye bu ñu jógaat te xam ne am nañ liggéey boo xam ne mosuñ koo liggéey xam nga tax ma yërëm li tax dëgg Mm. damaa gis mbër moom daan rek me naan taxaw. da ngaa gis waaw Ousmane Ousmane Sonko. waaw moom mbër la njëkk a daan. Mm-hmm. mbëram salafiste nga la fi njëkk daan. waaw effectivement. meneen mbër judduwaat yaa ngi daw sax. Mm-hmm. ca viol ba mbër moom mu daan ko. waaw njëkkatilaat ko mbëram màggal ak Tuubaa mu daan mbër moom ba léegi mbiram jeexagul de. loola jeex na. Mm. loola jeex na loola moom fi nga xamee ne ñoom benn bokk yaakaar ay ay ma jox ma laaj benn question. élection yi bi mu jàllee. ñu gagné leen. Mhm. yaa ngi dégg mhm. ak tey ndax gis nga benn balado télévision ab journaliste bu koy posé wala wala leader benn boo koy xaar bu koy répondre non la laaj ndax débat boobu yaa ko gis télé beeg rajo bi mhm. gis yaa ngi ko ci gis depuis élection yi nii bi weesoog tey non non xamul tax xamul tax déggoo ko ci dañoo xam ne lii dul sérieux lii moom sérieux dañoo gis dafa gis dañoo gis leneen du ko gën a sérieux dañoo xam ne waa ji ku fi topp naan ndaw si ndaw si ndaw si ndaw si dana da gën a raw waaw moo tax ñu jël bagage yi si takk ba mu jekk ñu teg ne jëlaat yeneen maanaam xam nañ la léegi du kaabu bu gis nga daan na mbirum ndaw si xam nga léegi ban ban cas lañ andi woon hmm. force spéciale mu daan cas force spéciale ñu indi cas li ñuy wax euh, kay rébellion hmm. daan na mbirum cas euh, rébellion di ko taxaw daan na Macky Sall Karim Wade nekk beneen mbër bi ñu koy tagal man maa la te mbër mu naqaree daan lay xam na xam naa ne dinañ ñëw ci euh, maa ngi doon bëgg a duggaale sax ci wax Pape Alé Niang dinañ ci ñëw ci fin bi mais dañuy des ba tey ci Pape Diop ndax bu ñu xoolee moom dafa wax ne euh, moom depuis élection yi passe ba léegi dafa tëjuwut d'ailleurs téléphone am daf ko fayoon négocié wut euh, pouvoir comme opposition moom moo jël propre décision euh, rejoindre benn bokk yaakaar ngir xam ne ànd ak benn bokk yaakaar mooy mooy li réew mi te it bu ànd ak opposition bi xam na ne mën nañoo nekk fa di bloquer situation réew mi ak yenn yenn projet de loi yeeg yenn projet yi nga xam ne euh, chef de chef de l'état am na ko mën nañ ko nekk di ko bloqué loolu moo tax mu dem rejoindre Benno Bokk Yaakaar te séntu wu ci benn benn benn avantage boo xam ne dina ñëw ci moom loolu jàpp nga ne wax ju cohérent la. ah moom dafa maa wax dafa ñàkk xel. ñàkk xel. Hmm. maa ngi mu doon ni ay élection jàll. Hmm. ñëpp taal seeni téléphone yow nga fay sa téléphone da ngaa nar a war. Hmm. ngaa nar a xam nga luy dëgg. waaw ah. Thierno Alassane Sall bi nga xam ne moom. nee na la man man damay des moom moom ca suba la ko wax moom ca suba ga mhm. la dama daal yéen ni ngeen ma bëgg considéré laa xamul lu ngeen bëgg ga mhm. man nekk naa doon ministre taxaw ci position yu baax xëy xëy bàyyi Macky Sall ab député may dellu ndax loolu neen yi ñuy xalaat war ngeen koo xam nga jaar ci loolu gis nga loolu moo xam nga ay tappale mooy fay sa téléphone fi ne nii ku fi gàddu bor ba mën dafay képp koy fay sa téléphone <laughs> waaw looloo tax mu fay ko. kan lay waxal di ko ndax ñun. ñoom hmm. moom rawut kenn aw jàng. c'est-à-dire loolu bu mu ko jéem xam nga lu am solo mooy daa ah. wor. wor gi nag ñun ñii la bett waaye moom bettu ko ndax lu mu waxtaanee woon ak ñoom la ba pare jiitu na lii mu def nii. Hmm. jox la benn misaal benn misaal ci ci ci sunna rek yàlla daf ne aadama. Hmm. garab gii. bu ma la yóbbu àjjana na ko lekk. lekkal yaa ngi dégg. Uh-huh. waaye nag la may déclaré mooy bu ko lekk ndax da ngay hmm. sama xarit te nit bu bëggee génn xaritam faaw nga kole ko motif te loolu la ko wax faaw ma am motif bu ma mooy hmm. garab gi na nga ko lekk waaye bu ko lekk ci li may wax nit ñi hmm. moom mooy ndigal baatin bi li mooy ndigal saayir si bi mu demee bi mu demee daal di nañ ca ësal ba déggoo ci ne garab gi da nga ko koy lekk li xam ne la kii di Pape Diop dafa waxtaanoon ak Macky Sall ba déggoo ci ne bam lay restreindre ndax ma jox la ci benn misaal wax na benn déclaration daal di ne. politique politicien bu radical bii ma ne woon Oumar Macky Sall benn problème mooy politique normalement dem dikk voilà et cetera lii lañ waxtaanee woon. maintenant résultat yi ñoom ñoo xalaat ne résultat yii di ñëw élection yii di ñëw gis nga ñoom bu ñu la waxoon li ñu ni ñu xamee réew mi ak tëralinu réew mi maanaam day tari. sëñ sëñ Abdourahmane mais ci Daarul Muxti mën ngaa dem ci alxuraan nga ko ci. mënoo moo tax nit ki xam-xam ak nit ki li mu li mu umpalewut yow koo xam yaay ji ñekk di naan lii ak laag la gis nga ñoom fii sa électoral Mm-hmm. jëmmi ñi votant prime votant yi. Mm-hmm. ñu leen di votel ñu leen di votel côté bi ñuy gagné bi ñuy perte ak ci lañ koy perte. Mm-hmm. xam nañ ko lu rawee nañ xamee seen turi ndaay ak seen turi moo tax maanaam programme ñoom bi ñu ciy teg pour bu weesoo ñu daal di koy ñu daal comme ni ñu ko bëggee woon. xam nañu ko xamoon nañ ne ñoom ay 114 député danañ ko waaye danañ indi ñeneen ñoo xam ne danañ wàññi primo votant yi. yaa ngi dégg ñu mën a jël député ñooñu daal xam ne ku yeewu doo ko Mm. war na ñun ñun perte nañ majorité bi quoi mm. comprendre léegi nag daw lijjanti ci des yéen waa yow yi dem leen lijjanti ñu dem lijjanti fekk ñoom la ñu lijjanti ngi seen poos mm. ñu war léegi nag kay dikk naa dama tëj sama téléphone tëj téléphone am wax naa ko léegi ku fi yor bor boo mën ta fay da ngay tëj sa téléphone am naa fekk képp ko def léegi nag xam nga lu ma ko doon xaar moom mu am grandeur assumé assumé mooy man maa maa waxtaanoon ak Macky Sall démb tey doole ñëw tey ñëw na nag la ñu waxante woon diggante woon dinaa ko def waaye na xam nga ma leen di bàyyeel Sénégal Sénégal ak Sénégal ne bàyyi nag man personnellement Pape Diop am na ñum nax comme ni Idrissa Seck naxee woon leen na ci nit ca man ci ñooña laa bokk waaw man mii ci mooy dañoo dem ba dañoo dem ba tool bi kenn nekkatu ku dul moom dafa xëy Macky Sall dafa faagal def mel na moom amuñ fi ñu lang tañun bëgguñ lu dul Macky Sall na dem na dem na dem hmm. na dem na dem nag ku taxaw ci waar wi ne na dem na dem na dem te doon njiit noo mën a def ñi daan na dem ànd ak yow ngir mu dem loolu dong la waaye naxul kenn waaw léegi euh, moom avenir u politique u Pape Diop ban jàngat nga jàpp nga ne moom est-ce que dafa signé arrêt de moram comme ni ko Idrissa Seck defee yeneen leader yi euh, gis nañ ñi ñu àndoon ñi beru woon ci local yi dem bi ñu ànd moom dañoo perte seen ay localité mm-hmm. jàpp nga ne Pape Diop jamono yi moom signé wul arrêt mooram moram ah Pape Diop nag politique da cee mës a dund bay faatu waaw mm. ah, mosu cee xam nga Idrissa man nga ne Thiès ah. maanaam lu mën a xew dafa daan gañe. Pape Diop nekkoon ah. man nga ne Thiès lu mën a xew dafa daan gañe. Mm-hmm. ma jox la benn misaal Fallou Mbacké mii nii actuellement nii nii Fallou Mbacké mii de président conseil régional. waaw est-ce que am na base politique Touba. base politique Touba amu fi moom day. tayif la dëkk li tax mu gañe li tax mu gañe. parce que bañeeru yeewi la demee woon loolu. parce que Abdoulaye Wade jamono yi nekk président de la république. moo <laughs> ah. présenté woon Pape comme maire bu Dakar ñu woteel ko ci turu waaw mm. ah, ci loolu rek la demee woon. waaw ah, PDS daal ñoo ko ñoo ko. waaw ah, PDS ñoo ko gemboon après bi PDS jàllee nga xam ne moom moom ci boppam ak base politique am. waaw deux mille bi deux mille vingt vingt deux bi. est ce que est ce que bokkutoon ci ci ci candidat yi. bokkoon na waaw. gañe na. gañewul de lu ma am dara. ok mës a am pour base politique xam nga lu mës a am. maanaam maanaam jëm benn problème situation daal di xew mu profité ci la jënd ko. Mhm. mooy comme comme tey ni mu demee nii. Mhm. waaw bi ñu soxlaa ñoo xam ni. ay ay nit la ñoo xam ne yenn yi man nañu koo nangu parce que Pape Diop magam jëmu la. Mm-hmm. amul base politique fenn. mos mm-hmm. a gañ fenn. Mm-hmm. comprendre nga dikk na taxaw ci situation li Pape Djibril Fall ñemewu ko na ko def te man gëm naa ne ñoom ñaar ñoo bokk même yoon ñoo ko ñoo bokk même yoon ñu jaar waaye Pape Djibril lii ñemewu ko. luñ ko ah, ci mën a dikk ak ko mën a déggee comme ko seqaloo ni daree woon. mun munu ko waaye nag gis nga <laughs> sëñ sëñ Fall. nee ba ca vote ya problème dana de. Ah. ah oui. ci Ndakaaru. xam nga gars yi 83 voix la ñu war am ci yoon. waaw ragal naa mu dem 84 ba 85. ah parce que vote bi secret la dina am dina am ñëwaat. del del xool. Hmm. affaire yi gis nga gis nga coalition Yewwi ak Wallu ak coalition Benno Bokk Yaakaar maanaam hmm. problème bi dafa am ci réew mi boo xam ne. Hmm. blocage politique dafa am. dafa blocage politique dafa am. Benno Bokk Yaakaar sincère tuñ ci Macky parce que li tax sincère tuñ mooy gis nañ kii koy dem la. moo tax lu ne mën naa am ca ci urne ba. waaw jamono yi ñu ngi gis ay ay DG yoo xam ne sax ñu ngi quitté Macky Sall di dem. mais ba tey seenu dem tamit gisuñu leen ñu dem yeewu de mais dem nañ daal. xam nga euh, politique moom ci situation yi doo xëy génn ci benn DG daal ne man léegi respecté naa yeewi. Hmm. politique da ngay mel ne xale bu jigéen rek par exemple mooy doo fekk benn xale bu góor nga dem di ko bëgg boo ko bëgg bëgg da ngay taxaw di ko xaar rek. Hmm. da ngay sañ say defaru rek ba baax xale bu góor bi di ñëw. Hmm. ngir mu am ngir nga am tuuti benn wàccuwaay ci moom. loolu rek la ñoom dañuy jaayu ngir gaa yi jël si leen. Hmm. waaye ku ci gaa yi dox même benn même pas mu ndaw ndaw gis nga Ousmane Sonko. Hmm. man de su ma doon déglu mooy actuellement nii nii. Hmm. dana jóg lëggee te fàtte lii weesu gis nga lii weesu ndam loo xam ne ci adduna. néew na lool mu am ci réew moo xam ne réew suñu réew yi nga xam ne zéro démocratie la zéro. zéro démocratie la. bu ñu waxee xam nga démocratie dañoo foog ne jël délém sëñ Fallou bi toog wax sa xalaat loolu démocratie la xam nga luy démocratie hmm. instance yi nga xam ne moo tënk doomu aadama yi ñëpp bokk ci boo dee buur yem ci boo dee baadoolo yem ci boo dee seen yem ci boo dee taalibe yem ci hmm. boo amee yem ci ñoom boo ñàkkee yem ci ñoom hmm. boo lëg boo am boo jàngee xam boo wéré dee faju boo xiifee lekk mën a naan lii mooy démocratie sociale ñun problème bii la am waaw jàpp nga ne Ousmane Sonko euh, yo est-ce que du day bëgg a wéet ci yoon wi mu jëm tamit comme euh, présidentielle 2024 jàpp nga ne dina yombee ci moom comme ni ko yenn patriotes yi xalaatee ndax bari na ñoo xam ne jàpp nañ ne fi mu toll nii moom bu élection yi doonoon tey Ousmane Sonko gañe na ko. Ah, maam élection yi di ñëw. Mhm. dana wuteeg euh, locales yi. Mhm. dana wuteeg présidentielle ndax locales yi. am na ñu ànd ak moom te duñ moom. Mhm. yi am na ñu ànd ak moom te duñ moom. locales yi am na ànd ak ñeneen te fekk moom la ñu àndal. dégg nga. li Moussa waxoon daal inni laa amliku illaa nafsi wa axi Haarun moom ma lu dul sama mbiri bopp ak sama ak Haarun mi nga xam ne ku fidèle la ci man Ousmane Sonko xam nga fan la jëmaat ma hmm. sama mbir moom ma ci lu dul sama bopp ak patriote yi fidèle mboolem ko xam ne fidèle 2024 bii di ñëw hmm. ñëpp danañ wadd hmm. bi mooy taaraar kuy kuy militant militant lu te doo militant kuy leader leader lu te ci ci ci ci ci ci euh, ci patriotisme ko ñëpp daañu leen taaraar su boobaa nag mm. système bi danañ ànd àndin woo xam ne dana jaaxal waa Sénégal tey nag bu boobaa du yomb de xamul tax du yomb mm. bi affaire yi jub see dama ne leen sëñ Fallou fii daa na ne boo gisee ba benn bokk yaakaar toog seen toog na ci àll yi campagne ñoom campagne mm. ñoo booba ñu ngi liggéey seeni résultat ci loolu lañ nekkoon ak di liggéey yenn juge lañuy ñuy àndal préfet yi ak su sous-préfet yi ak gouverneur yi heureusement boo dee xool mën nga ne quatre-vingt-dix pour cent ñoom mbir yi teg ko ci yoon ah man dégguma fenn ku ne fu leen kenn ngaañ ngaañi waaw waaw boo ñëwee Touba gi wax dëgg yàlla par rapport ak local yi local yi lu ci bëri ñoom lañ doon baaraam di rejeté di def ay kenn xamul parce que ñoom itam am nañ information parce que ci même structure la ñuy liggéey hmm. mooy seen kilifa xam nañ la xew ndax kenn hmm. ku ne boo xëyee balaa bala saa su jant sooyee service renseignement secret yëpp danañ def seeni document rapport waaw def seeni rapport mu fanaa hmm. de l' intérieur mu fanaa ne yii ñu jox ko ko Macky Sall yii duñ ko ko jox. Hmm. xam nga ma pour nga xam ne ñoom li xam nañ ko. Hmm. xam nañ ne état bi pare na léegi nag ci ay manœuvre politique lañ nekk yoo xam ne li ëpp ci ñoom gëm nañ ne Sonko mooy seen président mooy président de la République Sénégal ndax dañ jox ñoom ci li ñuy wékku li ëpp mooy trim primo votant yi mooy nit ñuy voté fan lañ gën a jëm. Hmm. mais nag ñoom politiciens yi duñ bàyyi mbir yi noonu. dañoo yor seen calendrier bopp. yor seen bopp boo xam ne wallaahi fii ak laa la wax. mille neuf sa caw sëñ Fallou ba jaaxal la Hmm. waaye nag Sonko fu fekkee ne feeg mi ngi mën a atteindre. waaw atteindre maam lenn ci nit ñu ko topp donte député yi ko topp ñëpp démissionné nañ ba bàyyi ko. Hmm. bu mu ci am soxla ndax gis nga assemblée ba Sonko di defar ak réew mu Sonko di defar lay tax mu mën ko. Hmm. jotagu ci. ci de. moo tax ginnaaw ba yow li nga yor malgré bari na dem na ci cinquante nangam wala ñu dem ci ay quatre vingt nangam loolu loolu loolu dara na na ko fàtte ndax gis nga tey jii boo yoroon yet meuble bi nga xam ne dañ ko dañ koo désigné forme maanaam formule paak lu mu rafet rafet ak lu ñu ko jékki-jékki ne ma nuroo paaka. taxul mu hmm. mën a rendi. mooy jëmmi majorité bii mu am assemblée xaw ma majorité lañ koy wax xaw ma euh, nu ñu koy waxee. taxul mu man hmm. a rendi. Hmm. mënut ta rendi. c'est-à-dire mënut a dogal dara. am na woon ah. dinaa leen wàññi dund bi mënu faa wàññi dund mënu faa dara. lam ne woon dinaa leen jox pétrole beeg gaz pétrole gaz ba mu ko tuddee laa xam ne dana man danañ am majorité mais mais du yomb. xamul tax. Ah. tubaab yi duñ nangu. maanaam actuellement Sonko di commencé liggéey boobu. Macky Sall moo tax mbir lu ci bari mën naa jàpp mën naa jàpp de na mu ko hmm. ndax Sénégal yi daan xëccoo moom mbedd yi mu génn chemise yi ak nangam ak ko daane hmm. maam da dana yekkal añ dana yekkal añ kum yéen ab xiif hmm. dana faj kum yéen ak dee muy Macky Sall muy Karim Wade neex na xari waaw dana ko yàkkal ab añ te yéenewu koog lekk dana ko ah. faj te yéenewu koog wér c'est-à-dire dina ko indi daal suñ bëggee dégg li message bi maanaam dina ñibbisi daal dina ñëw. day ñëw xam nga li problème bi mooy mbir yi moom Sonko moo ca jëm. faaw mu setal ko indi ko. waaw faaw faaw mu setal. Mm. nag. Mm. suñ ca yeggee. Mm. moo dul arrangé waa Yewwi. ndax du dul bokk ci maanaam accord yi woon. maanaam jàpp jàppandal ak Macky Sall woog moo dul arrangé waa Yewwi. ndax du ci accord yi signé woon su boobaa ñun waa boobaa waa Yewwi nan la ñuy def ñoom pour génn ci situation boobu. ci allié boo xam a mën a jàkkaarloog moom ak boo ngeen jàkkaarloo loo koy wax hmm. loo boo ko waxee ki mel ne man ne waa ah, yow kat li ngay def nen rek la ku ànd ak yow tey baax na bu subaa bu la bu tey yow ànd a keneen baaxul hmm. xam nga ñun xam nga ñun boo xoolee patriote yi bari loolu lañ leen di wax ah. ñoom daal ku ànd ak ñoom baax nga ku àndut ak ñoom baaxul hmm. te fekk nga euh, wa sallam ak alxuraan la ñuy wax yéefar bi yaa ayyuhal lazina amanu xaatilu wala jëla fikum xel sax Mm. yàlla dana yàlla na ngeen tar ci ñoom bu dara yomb seen diggante ak ñoom mm. bañ dikkee mu ne léegi tey yow en tant que yéefar tey ci ngoon gi ah mm. boo reeree pare bala nga bala ngaa tëdd dem doonub julit yàlla daal di ne kii neen ko boole ci seen biir ndax seen bokk da ah. ngeen am am na ca am kooku dañ koy léegi da danga ah waa gars yi daal ñoom sérieux parce que ku ànd ak ñoom ñu ne baax nga boo ànd ak ñoom ñu ñu bëgg a présenté noonu mbir yi mooy ku yor lu baax ku yor lu baax ku wuuteeg lu baax loolu am nga droit ne ko nekkoo ci lu baax ku ci ñëw tey bul am problème mu maanaam daa ñëw ci lu baax ndax ñoom liñ bëgg rek mooy gëmal nit ñi lii ak lee mooyam waaw ñoom ci seen kalaat calendrier boobu ñu dégg maa ngi la koy wax léegi daanaka jot nga cee dugg sax ñu dégg Pape Alé Niang wax ne ñoom la ñuy waxtaanee ci pale bokk na ci euh, seen benn sëriñ boo xam ne daal moom la ñuy xaar mu jox leen feu vert ngir ñu mën a arrêté waat Ousmane Sonko ndax euh, li mën koo gëmee noonu sëriñ boobu dafa bokkoon ci ñi nga xam ñoo leen moo leen waxoon ne leen euh, manifestation le le vingt neuf yi du mujjee am ba waral ñu doon civilé lan nga déggee waxee Pape Alé Niang. waaw am nga sénégalais moom mystique quatre vingt quinze pour yëpp ko nangu. Hmm. léeg-léeg nit commencé nii sax du gëm mystique parce que nit ci misaal rek jàngkat tubaab bi ñoom ñooñu. Hmm. da nga xam bu départ day jàng am entra am BFM am bac yaa ngi dégg. Hmm. am licence nekk docteur jamono bi def lii xale la xamul dara kenn talu mu dem ba am fonction di liggéey di am xaalis commencé nag tabax kër commencé am oto bokkee nag ne ah saa waay kat mi ngi dem hmm. ñu jóg nag fexeel ko bu mu yëg na hmm. nii wala lëggéeyam mel na nii wala lenn ci njabootam ma ngi yàqu wala dara yaa ngi dégg ci def réflexion bi dafay réflexion si ci ci tradition bi nga xamal ko ne ko léegi nag actuellement dañu am ñu lay xeex hmm. ci bàtti bu demee def li ko tradition bi santoon na ko defal nii sangul lii naanal lii day gis ne loolu day dañ moo tax Sénégal ak loolu ñu ànd xam nga waaw ah. te ñoom gis nañ lu leen doon apporté moo tax danañ gëm lu mel noonu waaye nag maa ngi leen di jox foofu benn avertissement hmm. gis nga sëriñ boobu di leen wax lu mel noonu sëriñ boobu du ma du ma weddi xam-xamam de hmm. comprendre hmm. waaye lu mu bari bari xam-xam man personnellement man di nëkkuma sax borom xam-xam waaye lii ma koy wax man li ma leen di wax man du dañ man te waxoon naa la ko fii mooy Sonko du koy tëdd jëpp kaso ñu dem dox seeni soxla effectivement man maa la wax te yaakaar naa lu wax naa la ko tënk ci effectivement man kañ gis naa yu bari. <laughs> ah très bien. <laughs> mooy kii sëriñ boobu lu leen ko waxee day xaru ñoom dañuy xaru. Mm-hmm. ndax day xaru moom dañuy xaru defe naa ne waxoon naa ne manifestation yi du am. waaw waxoon naa amul. moo tax gis nga bu ñu dof dof lu mm-hmm. xam nga lu seen calendrier bi nga xam ne ñoom am nañ ko ñoom muy. Mm-hmm. indi Karim Wade fal ko président loolu seen calendrier bu dee lu ñuy nëbb man man maa ko wax sénégalais tey mooy li bëgg. mooy li ñuy waxtaanee. Macky la même bi muy bi mu bëggee def 82 députés yooyu woo hmm. na ñu bari ci ay justice ak ay ay lu ñuy wax euh, ñu bari ñoo xam ne ñuy liggéey ci côté bi la ñu bari dañoo lànk hmm. ñu bari liggéeyoon na leen ci élection yi ñu bañ moo hmm. dégg xam ne li may wax ñu bari dañoo bañ dañoo gàntal daal dañoo gantal ndax xam nañ mbir yi jëmut kër waaw moo tax gis nga xam nga lan moo moo gën a sedd ci réew actuellement mu bàyyi ko jël plan bu plan B boobu am na plan B de li ma ko wax xam na ko am na plan B. plan B mooy Karim Wade. Ah. ka muy présenté nag nii ci kaw ñu gis ko du Karim Wade waaye jox xaalis doole ak sécurité. ak kaay jël palais bi jàpp nga ne Karim Wade mën na fee am dara tamit ak ak peuple bi ni ñu joxee bopp Sonko jamono yi. peuple bi benn problème peuple bi. réew mi nekk soixante dix pour cent des euh, ay jeune jeunes lañ amuñu quarante ans jeune yëpp daanaka yi ci ëpp mën ngaa jël ne soixante dix pour cent ci seen yi tamit Ousmane Sonko lañ àndal. Macky Sall Ousmane Sonko li ànd ak nañ quatre vingt pour cent. Hmm. mën nañ ko fi mu ne nii. kan Macky Sall. Ousmane Sonko. waaw Ousmane ok waaw. mën nañ quatre vingt pour cent. Mhm. waaye Sénégal problème mooy ay urne ay urne am da dul fal du folli. Mhm, effectivement. bu doon urne yi Ousmane Sonko da ngeen ko waxal ay quatre vingt deux dix xam xam déglu ngeen résultat yi. mi ngi noonu. déglu résultat yi la yoo xam ne bu doon opposant bi ñoo am fi Macky Sall am. barke mhm. Serigne Touba amul sax rajo bay wax ay cohabitation amul télé bu koy wax. te gis nga dañoo am journaliste yoo xam ne ba tey journaliste yooyu dañoo supérieur lu ëpp ci Sénégal yi. sama classe gi dong lañ mën a waxal. gis nga débat public bi danañ ko changé jamonoy Adji Sarr ndax jàppoon ne dara na am dara am na lu dul Adji Sarr. déedéet. ñan ñoo bi du journaliste yi. ok gis nga ne loolu nit war a toog di ko waxtaane la. non dafa mujj yow boo koy waxtaane sax da ngay mujj réticule da suufee quoi. te pourtant yóbbu nañ nit ba mu doon actualité fi nga xam ne kenn hmm. duuru taalab rajo wala télé du loolu lay wax. Hmm. dana am beneen débat bu posé boo xam nit ñi Sénégal daañu leen yóbbuwaat foofu Hmm. lu dul Karim Wade duñ ko wax. te loolu hmm. nag maa ngi avertir tous les patriotes dans la monde. Hmm. nañu organiser wu fexe wut fexe dékku gan gi ñëw. ndax gan gi buñ ko waajalut duñ am luñ ko ganale. waaw loolu maa ko wax gan gi. c'est gan c'est gan ak patriote yi lay doon. waaw te buñ ko waajalut duñ am luñ ko ganale buñ ko waajalut nag mooy. section yi ak cellules yi. village taax yi. et cetera buñ xeeb fenn buñ xeeb kenn. waaw loolu sax xam naan dañ koy def mooy question bu mujj maanaam Ousmane Sonko suma ma laaj Ousmane Sonko dama naan la Pastef de manière générale wala sax Yewwi Askan parce que xamaguñu fu ñu jëm mais li ñu mën a laaj mooy Ousmane Sonko ak Pastef ban taxawaay yow nga gis ne moom lañ ci war a am en face situation bi nga xam ne jàngat nga ne lu war a mën a nekk li ci kanam. xam nga Khalifa Sall ak Ousmane Sonko. Hmm. parce que Yewwi ñoom ñaar la. Hmm. boo xoolee bu baax. ñoom ñaar ñooy Yewwi Askan Wi ñooy parti yu mag yi ko composé. ah am na ay pire boo ci doolee nag. am na ay pire ak yooyu de. <laughs> boo ci doolee ñoo boo ci doolee ñoo ah. pire. yaa ngi dégg ñu ñëw xam nga pire boo gisee du ma ko limaale. PRP. PRP bu bandi. Déthié Fall. Déthié Fall am na ci doole de. Déthié Fall am na. d'ailleurs seesam sax ci la ñuy fa la ñuy defee ay. seen réunion borom la boo xam ni vraiment borom xam la. Hmm. waaye Déthié Fall. politiquement base politique am kenn xamu ko. maam mi gën a affiché wu xam nga moom dafa nekk borom xam-xam waaw dafa nekk borom xam ba pare itam dafa xam stratégie politique. Mhm. li muy apporter parti bi ak li muy apporter yeewi askan wi. Mhm. moo gën sax mu dem base di wut base politique. waaw mhm. ah, waaw li muy leen apporter. xam nga dafa am dafa am benn leader boo xam ne leadership am du maanaam dem ci koñam ngir wut fa base ñëw présenté ko. Euh, mouvement bala présenté ko parti bi. xam nga ni koy doyee mu toog di li mu toog ci parti bi ci directoire parti bi wala ci directoire euh, coalition bi. def ay manœuvres yoo beneen problème bu Macky Sall am ci élection yi daj ci faala ko yóbbee effectivement xam nga ma hmm. léegi nag gis nga kooki soxluñu ko mu dem ndar di xëccoo ngi comme abambay di nekk député foofu wala muy nekk maire foofu hmm. soxluñu ko ci côté boobu parce que bu demee mën naa perte foofa mën na ko bañ a gagné ba pare ñëwaat li ñu ko doon doyee comme stratégie politique du hmm. am temps pour liggéey lu mel noonu mais ñi ñoo composé base bi yeewi la euh, Mosta Mosta City ñoo tudd nan Pire. Pire waaw. sëñ boobu mm-hmm. euh, ak Ousmane Sonko. Mm-hmm. ñett ñu ñoo ko composé. te ji boo gisee côté Tivaouane bi. Mm-hmm. jàpp Thiès nga mën koo gañe. yaa ngi dégg nga dem ba ca Ndar nga gañe fa dara. boo calculer bu baax wa gis nga waa Pire liggéey nañ fi lu rëy xam naa leen. wet googu lañ dëkkee ñoom. wet googu lañ dëkk si gis nga seen seen. waaw côté côté Tivaouane Pire côté boobu daal région de Thiès bi. région de Thiès bi jëm na le ba ca ba ca Saint-Louis. foofu dañoo faa bari ay taalibe. ba pare biir dakaar itam. Hmm. abadi taalibe te ñoom te ñoom ni ñuy dundee ñoom ñoom ñoom hmm, waa Pire. ak hmm. waa Moustarchidine ñoom. comme doxalinu mouridisme la ñoom ñoom kilifa bu leen ci a dégg. ñu julli dañuy dem julli ji. bu ne leen ñëw leen bàyyil ma fii damay gàmm seen ñu dem bàyyil ko. par rapport ak ñun gis nga mouridisme ñun boobu boobu idéologie lañ amoon Mm. boo xoolee tey ji dañuy sonn day am fit ba naan waaw man de ma sañ mun taxaa digg rek du ma ko def ma nga loolu dëgg mm. a topp sama xalaat mm. woo xam ni doo am problème mu lay digal nga naan ngay ngay jéem a xàmmee li mu lay digal ak li da xam ne rek li mu lay digal mooy li baax li mu lay moo tax bu ngeen gisee problème bu problème sénégalais am nañ ko xam na tax ñu am ko mooy ñi leen war a digal te xam yoon bi ñu leen war a jaar pour digal leen dañu am problème ak ñooñu ndax dañ leen doyatu te ñooñu itam ñoom xam nañ ne ñun nit ñi doylootuñu te dara lu wër lu ko lu seen seen njort rek moo tourné seen xalaat mm. yaa ngi dégg ñu bàyyi leen mm. ñu bàyyi leen ñu ngi ci situation yu critique léegi euh, mm. bi dal Ousmane Sonko bu dikkee du ko fi bàyyi du ko fi bàyyi déedéet ndax xalifa Karim Wade xool na gauche ak droite déedéet ma déedéet Macky Sall xool na gauche ak droite système bi xool na gauche ak droite xam nañ ne ci moom ci ñoom la bokk waaye ñoom liñ gëm-gëmu

waaw ginnaaw la ko yàlla sàkkee dafa ne bàyyiwu ko kenn mu téye ko hmm. moom rek moo koy téye moom mi ko la ko jox moo xam hmm. hmm. a jiitu la fi nekkal di gétaa ngaas ak moom di jàppale ko ci ba indi ko nag wax dëgg yàlla fal ko waaw te ba mu ko falee Ablaye Wade dafa dafa wane ne moom taalibe murid la nangam ak nangam loolu loolu lépp amul benn problème ci moom yaa ngi dégg amul benn problème ci moom moo ko Seex Tijaan ak Fuuta gii lu laa Wade am ci réew mi daanaka ñoo ko defal. Mm. comprendre waaye dafa ñëw jàkkaarloowaat ak moom ne ko du nii du nii du nii du nii du nii du nii ba daanaka. Mm. Macky Sall ñaan mu jàkkaarloowaat ak moom ko du nii lii nag fanweeri at la boo dee xool ba jàpp ñeent fukki at ñu xam mu sarsi bi. Mm. bi saa su na leen ñëw leen politique ñu ne ko ay ñu nañ yàgg yàgg yàgg yàgg ba mu naan ci ndox mu sedd bàyyi leen. du yàgg yàgg ba mu lekk seen jég wala mu lekk seen prix. loolu daal maa ngi lay xamal na la sëñ Fall président Sonko ak ñi nga xam ne ñoo composé li ñuy wax yeewi askan wi. Mm. muy pire Khalifa Sall. Mm. Ousmane Sonko sama xel dal na ci ñoom. Mm. mais taxawaay bi ñu war a am man loolu laa bëgg ba taxawaay nga gis ne ñoom loolu la ñu war a mën a am. taxawaay bi ñu war a am dégg naa léegi ngay wax naa dañoo war a mobiliser wu yooyu noonu. dañoo war a mobiliser wu sur les bases sur la base xawma lañ koy wax ci base bi dañoo war a dellu ci base bi. Mm-hmm. tellement gis nga rajo beeg télé bi baax na de. Mm-hmm. nañu wut ay gars yu leen cay demal. Mm-hmm. waaye nañu wut ñu nit ñu am temps. Ah. te mën a wax ak nit ñi. ñu leen di liggéeyal ci suuf. danañu di di ay message yu wane ne danañ am gan gan gi nañ fexe ba dégg ko. est-ce que tamit est-ce que tamit li ñuy baññee parce que maa ngi dégg keroog Abass Fall koy wax cumul de fonction yi ñuy bañ est-ce que loolu tamit du wàññi seen doole. Euh, comme parti bu ndaw lañ commencé am ay fonction di occuper yenn post de responsabilité yi ñu wax ne ñu wax ne léegi ñenn ci ñi nga xam ne boole nañ ñaari poste euh, ñoom daal seen parti nanguwul ñuy cumuler ñuy cumuler ñaari fonction yooyu est que loolu jàppoo mën naa wàññi seen doole jërëjëf li wàññi seen doole mooy. dañ fa toogoon ne fii ñun bu ñu dikkee programme bii la teg maanaam duñ cumul des fonctions duñ def nangam. Mm-hmm. ci loolu la ñu leen wootee mm-hmm. def ko. parce que nag bu dem fee defuñu ko ñii dañuy gën a am lu wax de. Mm-hmm. lii ñu te man damay wóor ne ñii liñ la diggee fii bu ko defut bu demee pouvoir day gën a ñàng. ah bien sûr day gën a nag nit ki la wax nag. ba bu wutale laag. waa ji loolu bu ko defee lan la mais mais man sama sama parti day néew ne man daanaka su ma tëjee Aliou Sall mi jël pétrole bi man su ma tëjee euh, euh, gars yi bokk sama parti su ma leen bàyyiloo ah, euh, ko. député waa Thiès ñoo ko def député waa Thiès ñoo ko def maire c'est ko moo ko def maire wala mais waa Thiès. waa ci population Thiès ñoo ko jël yóbbu ko assemblée est-ce que tamit. ñoom population Thiès lan lan la leen présenté du kayitu yeewi. waaw yeewi lan ñoom lan lañ ca présenté ñoom waa ñoom waa Pastef du Pastef lañ lañ ca présenté. waaw loolu leen tënkoon ci seen instance de décision ci seen i parti. Hmm. suñ ko respecté wut buñ jëleem réew duñ ko respecté. waaw ah. ah, way waxtaan wax dëgg ca la. waaw ah, jërëjëf sëñ ñu ne la. kaay hmm. jiite ñu mooy loolu loo ñu ne bii baax na. Hmm. nga dikk ba nga nga bëgg a sensé loolu mooy ku fi jaaroon nag. waa jëlee ki mille de fonction yi man d'accorduma ci. mais mais maire bi su ma nee démission jël deuxième am lu ko na tànn lu ko ci neex. xam nga Cees waay ñoom ñoo la fal. mais situation yi day day changé nag te bu yi tamit. xam nga contexte yi d'accord naa day changé. loolu ñun bu ñu ko jëlee bëgg ko def maanaam règle générale. Hmm. Macky Sall boo neexee ne kii mille fonction yi ba tey contexte bi dafa changé. xam nga buntu yooyu du ubbeeku imaam imaam Malick mu jox la ci benn misaal. Hmm. dafa dikk xool Kaaba gi ne ko Abdoulaye ibn Subayr tabaxee mu ne du nii sax ci ne ko ne ko nañ kon damay bañ mu nekk ab laajtant ku dikk toj ku dikk toj tabaxaat ku dikk toj tabaxaat mm-hmm. loolu xam nga da la ciy bañ xam nga dañu ragal général mm-hmm. bu fekkee ne kii nii daf ni maanaam suñ parti day néew doole yow def nga li ñuy wax euh, ah. maanaam jëmmi na na dem na yàqu loolu du problème xam nga luy mm. nga waxoon nit ñi bañ watee mm. ki da nga jiital rek yow la nga waxoon jiital mm. la tax jiital nit ñi encore te nag loolu du leen néewal dara mukk nit ñi toog ne waaw ñii dañoo dañoo bàyyi ndombal tànk la nga bañ ki mu leen di yàqal loolu mënta ne waaw jërëjëf sëñ Modou moom lañ amoon fii yaakaar naa ne temps bi dafa jeex waaye ci waxtaan wi sax liñ war a waxtaanee bari na waaye ñu jàppaat ko ci beneen yoon rek eggale yeneen point yi incha allah ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba beneen yoon incha allah.